Abdoulaye Lahad Cheikh Abdoulaye Lahad Cheikh Abdoulaye Lahad ibnul xadimu samat réew maa ngi lay nuyu tey ñaani yàlla may la dimbal yàlla nga yeggale naa lu gaay baaxi fi woon yàlla nga yeggale naa lu gaay baaxi fi woon sa yéene ci sëñ Tuubaa nga xëy ko matal moo ñaan yu baax ñi la yar ñoom ñëpp xëy la gërëm ak Cheikh mag bii la faggul yàlla xëy ko dogal der baa ngi yoon waa yen baa ngi teel na woyof yaa aw ci jéegoy woon say wax la yàlla saxal woyof ca ko waaye daal kuy wax na wax la mu xam biir baa di yàlla gabam daw leen ci jéem a jubal jox naa la saa ruu gi ak saa xol bi ak lu ma jur saa yéene ak lu ma jëf loo wax ma def ko waxal bindee fi maase na booloo fi maase na booloo ni yaa ci woon nuy sabtara boraate ñaan di déglu ndigal sunu xol yi sedd sunu xel dal te yaa ko waral yal la yàlla ndog nga jëf ba matal sigal nga say mag te boo say doom ñu topp ci yow Bamba jiite yaa see rek nag nu dimbal alhamdulilah am dan cant war na ma bi dee fi ci yow Cheikh Abdou maa ko yaa yor la Bamba yoroon yaa yor la Bamba yor la Bamba nga kër fi woon mbooleem lu Cheikh Bamba naa loon lépp di nga ko matal yaay mboolem lu loon lépp di ko matal yaay xudbu yaay xawsu yaa naj lu xadimu la ak samtu wara baxaru leen waa noonu sakku ndimbal buur yàlla noonu sax balaa ya ku dem jolof xam ni njëbbal mooy li wet doxalal yal na la yàlla saxal tuuba yal na la yàlla saxal tuuba ba daj amee xob nga ub sara kii boot say doom te jox nu ndigal yal na la yàlla saxal tuuba ba daj amee xob nga ub sara kii boot say doom te jox nu ndigal Seex ba ràññi naa la yaay mos dole del seeti naa ne yaa raw tabatig lolle ku fàttaliku si Abdou na la wóor ne di nga doon murit boo xamante ne ku la xool du nattable ne kii muritub sëñ Tuubaa la ku fàttaliku si Abdou Lahad tamit di nga doon koo xamante ne di nga doo doo liggéeyal sëñ Tuubaa mukk ba naw ko loo def di ko xeeb kon ay jikko la ak i ak i pas-pas yoo xamante ne moom la ñu bëgg ñu fàttaliku ko rek waaye du xew-xew boo xam ne saayir la du xew-xew boo xam ne xumu-xumu la lii rek la. sëñ Abdou Mbacke digganteem ak Hizbut Tarqiyyah lu yàgg na. waaw moom dafa bokk ci dongo yi yàlla defal leen tawféex rek ñu ngi juddoo ci keppaaram moom sëñ Abdou Lahad moo moo sos Hizbut Tarqiyyah sañ naa wax loolu moo nampal Hizbut Tarqiyyah moo yar Hizbut Tarqiyyah moo leen tete yi teg leen ci yoon woo xamante ne wàccuñu ko ba bisub tey ndax ku fi toogal sëñ Touba ñu ne la dan na du ñu geesu ndeyjoor du ñu geesu càmmoñ ci moom lañ ko nàmpee loolu doxin la woo xamante ne loolu rek la Hizbut Tarqiyyah nag ni mu ko waree noonu la waree da daayira yëpp noonu la waree dong yëpp loolu du loo xamante ne dafa mel ni cër la boo xam ne moom rek ko war a am déedéet sëñ Tuubaa lu yaatu la lu ci moom yaag sa bu dar guy yéen a yem nga takk ci guy gi waaye xaajaloo ko waaw bésub tey bii nag day bésub Cheikh Abdoul Ahad Mbacké te buñ ne sëriñ Abdoul Ahad ne yoonu murit ndax mboolem lu jàkk si yoonu murit sëñ Abdoul la loolee nag liggéey bu ko sëriñ Touba séddee la ngir sëriñ Touba moo ne woon bi mu gënee àdduna Cheikh Abdoul Ahad mi am naa si moom yaakaar yaakaar googee mu amoon si moom nag koroog bi mu gënee àdduna ba ni mu yigee boromam sala tegoon tànkam si liggéeyal sëriñ Touba ba képp koo xamante ni ab taalibe nga ngay ab murit foo mën di nekk gis nga jëfi si Abdoul Ahad bi jumaa ji feeñal ci liggéeyam bu wér dëkk bi feeñal na si yéeneem bu wér almeer bi kazalika tali yi nekk ci biir dëkk bi lu sëpp Sëriñ Abdou Lahad la ndox mi Sëriñ Abdou moo ko lijjanti ba Touba kenn du fa fay ndox loolee si liggéeyam Sëriñ Abdou la forage yi ngay gis yëpp ci biir Touba si dunduk sëñ Abdou Lahad la fi ñëw loolu yëpp moo ko saytu ba andil ko sëñ Tuubaa si biir dëkkam bi kon yaakaar joojee sëriñ Tuubaa amoon si moom matale na ko tey murit buy noyyi bu ne xam nga ne sëñ ablaat Lahad dimbale na la ndax civilisation ak doxin wu sell wu rafet moo ko andi moo ko yeesal ba mu yees si murit gi ndax ku masaana seen nga yor weneen melo wu dëppoo melow murit da si daan gàll bakkanam ba loolee deñ da wax am murit fu mu toll nay sel tey jëfe ndigal tey bàyyi tere ba tax na loolaa waraloon mu indi fi lii nga xamante moo di gendarmerie bi mu fi andee gendarmerie bi ñun murit yëpp di wax sëñ Abdou dugal na gendarmerie bi Touba. liggéey boobee nga xamante ni fa la nekkoon murit yëpp teg nañ ko bët sëñ Abdou Lahad daal yal nañu ko yàlla fayal zahiran wa baatinan barkeb Seexna al Xaddim